lu waral teewaay bi nag mooy suñu kilifa dañuy yebal fii muy tudd Yacine Djibo au nom de Speak Africa pour ñu amay kàddu ñu mun teewee pour daay jàlle ko ak mbooloo mi d'abord ñoo ngi jégalu si ñàkk teewaayu suñu directrice muy Yacine Djibo bëggoon na fi teew waaye dafa fekk ni dafa nekk si yeneen yitte yi xam ñoo tey en tout cas ñoo ngi rafetlu bu baax teewaay bi ak mbooloo bi di fàttali ni tey lu ñu boole fii lu am solo la wàllum tay ji wax si lépp li mettal jigéen ak néewal doole ak situation handicap di rafetlu teewaay bi aussi di xamal ne aussi mbooloo bi ne rencontre bi am solo la yaakaar naa ne waxtaan tey dina jur ay pexe yoo xam ne dina tax suñu kilifa yi nekk jiituñu ak suñu partenaires yi mu dimbali ba ñu xam yoon wi jaar pour dimbali soxna yi nekk fii toog ak suñuy mag ak suñuy rakk ak suñuy yaay yi xam ne dañuy dund chaque jour ay méthodes yoo xam ne day jóge si société bi la jógee ak si àdduna bi donc ñu ngi rafet lu teewaay bu baax di remercier ñëpp di yaakaar ni incha allah suñu jógee tey dinañ ut ay yoon yi leer pour mun dimbalante xool lu ñu mun dimbalee suñu suñu mbooloo suñu askan dimbali suñu ay sœur ak suñu ay rakk jërëjëf. monsieur le bu teewee ak ñi fi ne ñu wax leen ni fii suñu lan mooy suñu doxalin fii ci dëkk boo ñëwee fekk borom dëkk bi da nga koy da nga koy euh, euh, dalal moom moo ñu war a dalal. Mm-hmm. ñun tamit ñu koy dalal parce que aussi bàyyi na yitteem ñëw fi mm-hmm. dama ko ma ne woon en 2019 dañu yëgaloon ne fii dafa amoon ñetti jigéen yoo xam ne dañ leen excité wu excité woon mm-hmm. mooy xarafal jigéen. parce que gis nañ ne xarafal jigéen souvent ci région yi la gën a bëri mooy sud ak nord loolu nag bu mu amee fii mu jaaxal ñu trop ñu ne ah ñun nan la mënee am fii ci yëmbal. mu mun a am cas décision ci loolu la ñu ne kon ñun waral am na solo ñu ñëw fii waxtaan ak nit ñi bañ fi ñëwee woon ñu ànd fi ak mouvement des jeunes de l'espoir ñu defoon formation ak ndaw ñi sur euh, lan mooy mutilation génitale lan mooy excision bañ ko defee ba pare ñu def fi benn dialogue ñu defee dialogue bi nag jeunes yi ak bàjjenu gox ñi ñu ne ñu vraiment gis nañu ne personne handicapées yu nekk fii ci biir gox bi am nañu pas-pas trop te war nañoo mën a liggéey ak ñoom loolu moo taxoon ñu am suñu partenaire bu tudd Speak Up Africa euh, am ben fond bu mu génnoon bu tudd vent essentiel muy ben fond bo xam dañ da ko jagalel ñu ak ay yelleef jigen ñi jagalel ko lepp activité yo xam ne plaidoyer la ci euh, ñu def ak ak yelleef jigen ñi ñun nak ndaw ñi aussi suñu réseau ñu postulé ci am ci ben financement ñu né ah ñun comme dañuy dellusiwaat yëmbal fi ñu ko dooree won ñu ñu continuer ko fi ñu defon fi ben formation ak suñu jigen ñi ak euh, goor ñi ñu nekk ci situation d'handicap fii ci tey nous ñu dellu ñu ne ah des soxna amna amna solo ñu euh, fi joxat cadeau ñi defon formation bi ñu wax kilifa yi euh lool mo taxonté ñu ñun fi ak monsieur Pape Gueye fi suñu Speak partenaire Speak Up Africa and fi ak euh, madame avons nek euh, chargé de programme GGF GGP nous fi ak madame Diallo Soxna Euh, nekk waa CECI ñu suñu partenaires yoo xam ne dañuy jàppale beaucoup ci programme yu bëri ànd fi ak euh, madame Bakhoum ma jigéen moom mooy coordinatrice boutique de droit bu Pikine euh, te aussi moom moo fi nekkoon formé suñu jigéen ñi ak suñu mag ñi fii ci biir yëmbal alors tey nag muy doon ndaje boo xam ne dañoo bëgg ak kilifa yi waxtaan ak ñoom ci lépp luy violence basée su le genre violence boo xam ne jigéen yi ñu ngi koy dund ndaw ñaa ngi koy dund ci seen biir gox yeneen waxin yeneen jëfin mais yaakaar naa ni formation bu ñu fi defoon bi passé ak euh, suñu euh, experte ma jigéen defoon defoon jaaroon na ci bu bëri ba ñu bëri tey comprendre ne genre bu ñuy wax ñun fii Sénégal amul lenn lu war a xam ne dafa mën a bokk ak affaire góor jigéen wala affaire leneen ñun genre bu ñuy wax mooy ak ak yële boo xam ne jigéen ñi war nañ ko am ci gox yi ñu xeex ko ñu waxtaan ceeg nit ñi waxtaan ceeg kilifa yi xool lan la moo lañ ci mën a saafaraa lan lañ ci mën a euh, jàppale ba que jigéen ñi mën a am vraiment seen gën ak seen yelleef fii ci dëkk bi. loolu moo taxoon tey ñu ñu di daje fi euh, di di gërëm aussi ñu fi teew peut-être ma jox kàddu gi monsieur le maire mu daal tijji waxtaan bi. xam nañ ne dafa dafa bëri programme te di ko gërëm aussi ci teewaay bi euh, di ñaan aussi que ndaje bi aussi mu génn mu indi ay yeneen ndaje ay yeneen solution yeneen Euh, programme yoo xam ne dinañ ko mën a def fii ci gox bi ngir euh, ak ak yelleefu jigéen ñi. vraiment maa ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant vraiment di am kontaan ci ñëw euh, fekk seen atelier bi comme ni mu ko waxee mu nekk atelier bu bu am solo ñu jëmale ko ci wàllu discrimination bi ñu teg jigéen ñi xale yi ak ñi nga xam ne ñooy personne à mobilité réduite comme ni mu ko waxee léegi nag vraiment atelier bu am solo la kon may kontaan ci eh, ni ma fi ñëwee pour ngeen am yéene ma am yéene boobu pour ñu ubbil leen atelier bi xam naa ne su ma yéene moo doon euh, nekk ak yéen ànd ak yéen atelier bi du début à la fin loolu moo doon su ma yéene mais euh, comme ni programme yi xawee dajaloo présentement ni ni ma toogee nii préfet le préfet vient d'arriver

Euh, ak ak respect ak considération buñ jox seen thème bi nga xamne ne ngeen su ngeen ngeen tànn euh, muy thème bo xamne thème bu am solo la euh, thème bu xamne dafa yitteel ñëpp déjà nous sommes dans le le mois de la femme pour le dire ainsi mais li am solo moy thème bi ngeen jël dafa nekk thème bo xamne thème thème tous les jours la et tout le temps dañ ci war di waxtaan ndax dafay nek ay jafé jafé yo xamne ne sunu jigéen yi sunu sunu mbokk yi dañ ci am ay jafé jafé kon je pense li ci ëpp solo moy di ci waxtaan ni di ci échanger di trouver ay ay ay carnaval de solutions, je pense ça c'est très important kon je tiens à féliciter ñi nga xamné ñoo am initiative bi ak sen partenaires yi nga xamné ñoo leen ciy di leen féliciter di leen encourager di leen wax ne liggéey bi ni la de toute la façon vous pouvez compter sur la collectivité locale que, que, que je représente ici vous pouvez aussi compter sur les acteurs politiques yi nga xamné aussi mën naa fi représenter

taxawee bi am solo gis nga les jeunes filles xalé yi ni ñu taxawé bo dama ci école aujourd'hui les jeunes filles ont les meilleurs résultats donc euh, am nañ taxawee bi am solo les personnes à mobilité réduite comme ni ko tuddee aussi gis nañ limite ñom ni ñuy taxawoo ba fep fu nit ñu taxaw ñu taxaw fa liggéey fi liggéey bu mucc ayib kon ñoñu dañ nekk couche yoo xam ñun euh, c'est une obligation même buñ ko demandé wul sax suñu waréf la pour ñu and ak ñom euh, accompagner ci yëpp programme yi ñuy def kon nag dañuy di féliciter leen encourager ci initiative ñu jël ba tek atelier bi ak ñi koy animé ñëpp vraiment ñu ngi leen di féliciter euh di wax né kontaan nañu inshallah xamna né ma ngi xol d'ici la fin des travaux si le temps me le permet fekk ñu paré ci liggéey bële dinañu xol lu ñuy amé fekkee les résolutions et autres pour que demain ñu mën leen accompagner bu baax baax afin gën leen accompagner sax laay wax parce que ñu ngeen accompagner toujours gën leen accompagner ba yi ci gis ay jafé jafé ak yo xamné ne nañ ci mëna japp ñu gën ci jappé

anamu sax Khady Michel anamu Khady Michel donc ñoom ñoo ñëw ànd ak man xam naa ne man je me retirer pour l'autre réunion mais ñoom ils vont rester ànd ak yéen ci plaidoyer bi ndax xam naa ne am na loo xam ne ñoom am na lu bëri mën ko ci apporter parce que en plus d'être des maires et acteurs de développement et acteurs communautaires lañu kon ñoom liggéey bi mu am nañ ci ñaari rôle en tant que acteur communautaire en tant que aussi en tant que aussi maire kon ñoom am na ñu bëri lañu ci mën apporter kon je damay bàyyi ak ñoom ngeen egg liggéey bi man peut-être d'ici la fin des travaux fait que par un mon mon amour mu ñu la fin des plaidoyers vraiment je vous remercie je vous remercie et je vais me retirer